ma Makairé Kairé maa ngi lay nuyu. ñu lay sant bu baax soxna Ndeye Comba Moreau. voilà nga nekk njiital mouvement ensemble pour le développement de Rufisque déjà nak nga gisee déroulement wu élection euh, campagne électorale pour élection législative anticipée yu 17 novembre daanaka euh, cinq jours moo des ci campagne bi nak nga gisee euh, ni campagne bi demee boobu ba léegi. jërëjëf Comba Moreau maa lay nuyu bu baax. di rafet lu liggéey bi nga xamante ni yéen koy liggéey d' abord tout d' li may commencé ci campagne électorale yi mooy di ñaawlu ak naxarlu violence yi nga xamante ni fan yi passé jot nañ ko gis ci campagne bi donte sax euh, oote jàmm gi nga xamante ne nii euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye oote naka waaye teewul jot nañ ci noté ay kàddu yu juyoo ak ay jëf yoo xamante ne nii kenn rafetlu ko. Euh, d'accord kon nag gis nga ni campagne bi ni mu dooree boobaak léegi daal amul bilan loo si mën a jàpp daal lu dëgër à part fitna bi. waa campagne bi li nga xamante ni moom la si ñu bëri seetlu mooy dafa am ay candidat wala ay tête de liste yoo xamante ne nii. Euh, mbir yi dafa xaw a jaxasoo seen bopp ndaxte soo nekkee si euh, élection euh, yi nga xam ne élection législative la ngay dem si askan wi mel ni ku nekk élection présidentielle daanaka loolu day indi jeexi jaaxa si bopp askan wi li nga xamante ni ñoom moom lañ doon xaar ci ñoom mooy ay contrat de législature yi nga xamante ni day màcc jëm si assemblée ak na muy doxee. ay pàcc ya nga xam ne moo fa war a jóge ngir dem si gouvernement bi moo fa war a jóge ngir dem si askan wa waaye li nga xamante ni moom lañ gis day mel ni daal gars yi dañ nekk si jixe jax bu mm-hmm. pour yow yan défi mooy xaar euh, député yi nga xam ne ñoo war a dem ci assemblée nationale après élection yi yan défi moo leen di xaar exactement fan lañ war a euh, féete askan wi waaw d'abord euh, gars yi dañoo nekk am bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi ñuy am mooy ñu dakkal fii li nga xamante ni dafa weesu ndax tey ji lii ñëpp di laaj mooy ñu dakkal li nga xamante ni ay jëf ci législature yi nga xamante ni moo weesu te li ñuy xaar tey mooy assemblée boo xamante ni day dakkal euh, mbir yooyu assemblée boo xamante ni député yi dañuy am euh, ndëgërlaay pour comprendre askan wi ngir euh, seeni jafe-jafe ci wàllu Euh, socio économique ak tamit ci wàllu euh, li nga xamante ni mooy tax euh, député teewal askan wi ndaxte ñu bañ dugg tamit si jeexi jaaxa yi wala ay ay xuloo yoo xam ne du intérêt peuple bi wala ñu nekk ci ay mbir yoo xamante ni ay affaire parti la wala affaire de personne wala di jéem a xool loolu loolu daal ñu ngi Euh, sàkku daal si député yi nga xamante ni ñu ngi ñëw ma si profité nag di ñaax député Tëngéej yi nga xamante ni suñu borom mën na def ñëfay fay ñu leen ñaax ñu leen ñaax tamit mooy à que ñu défendre ay projet Tëngéej ñu def défendre askan wi am na tamit lu bëri loo xam ne ñu ngi koy xaar si wàllu révision de loi si wàllu euh, euh, correction ak ay réformes ah lu jëm si euh, le criminel criminalisation om mbirum ñaari tur ah loolu itteel na askan wi ak li nga xamante ni mooy biru euh, location bi ndax gars yi tamit soxla na loolu mu am si ah ak li nga xamante ne ni aussi moo jëm ci wàllum petrole si ci wàllum gaz loolee lépp ñu ngi koy xaar ci député Tëngéej yi waaye tamit député Tëngéej yi ñu leen xaar si ay projet yoo xam ne département bi daka soxla lu lu si mel ni ay lycée yu bëri lu si mel ni ay lycée technique nga xam ne day former xale yi ñu gën a am matière am métier tey jii ab Abdoulaye Sadji ji muy ngi ni autorités yi wara na jóg def si liñ si war a def mais bon euh, ñi nga xamante ni ñoo dëkk dëkk bi rek wala jàngee fo ñooy jóg di ko jéem a defaraat te loolu aussi su mouvement bi mu ngi ci am na ay problème yu mel ni assainissement ndax da defa dafa soxla plan d'assainissement spécial bu urgent boo xamante ni dañ ko war a taxawal pour ndawi Tëngéej ak département bi département bi am nañu problème ci wàllu érosion côtière ndax loolu am na jokkul am na tamit euh, barañi nday kumba lii lépp ñu ngi koy xaar si assemblée bu bees bi rawatina ñi nga xamante ni Hmm. beneen débat aussi actuellement mi ngi si lang politique bi mooy la criminalisation euh, de l'homosexualité euh, ñi si opposition bi sax lancé nañ euh, défi le nouveau régime pour mu wax si ne ñoom suñu amee majorité daañu criminaliser homosexualité fii ci Sénégal naka nga gisee débat boobu nga xam ni ñëwaat na au cœur de la campagne électorale. ndax moom loolu ñëpp a ko bañ. mbirum góor jigéen moom neexul kenn te ñu ñëpp dañuy dugg ngir xeex ko ñu ngi si xaar nag le premier ministre Ousmane Sonko moom mi nga xamante ni euh, dafa diggi woon ak askan wi ne une fois ñu am major une fois assemblée bi taxaw loolee dinañ ko voté ngir ñu criminalisé mbirum góor jigéen donte sax question bu sensible la waaye question yi soo koy jël dañ koy jël ak sa fit ak fulla ak sa fayda ndax lii la askan wi soxla. Euh, d' accord léegi naka nga mais dañu gis ci campagne électorale bi am député yoo xam ne euh, dañuy proposer ay projet yoo xam ne vraiment euh, du compétence su député naka nga gisee campagne bi côté boobu est ce que nekku ni candidat yu bari dañu ignorer lan mooy rôle parlementaire au vrai sens du terme. waaw comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen loolu moom ñëpp dañ ko. bàyyi xel dañ ko constaté ndaxte ñun li ñuy xaar ci député yi mooy ñu wax ñu ñu wax askan wi naka la ñuy defee ay commission technique ah ñu leen xaar ci seen comportement ci wàllum plénière yi ah naka la ñuy euh, euh, def ba du ñu jël seen temps yëpp di tagg ay ministre ak di tagg ay parti ba du ñu li nga xamante ni gouvernement bi mu ngi koy def te tamit ñu bàyyi euh, bañ a nekk foofu di ay show ah ñu contrôler ñu l'action du gouvernement contrôler ñu li nga xam ne askan wi jafe-jafe yi moom lañu am ci wàllu politique publique ak tamit li nga xamante ni programme yi ñoom noonu lañ ko tëggee ci wàllu budget ñu toppal ñu ko baax ba lu nekk suñ ko voté ñu xam fan la génnee fan la jëm ak fan la toll Euh, voilà dernière question ñu laaj la aussi sa xalaat euh, ci euh, dossier wu l'ancien ministre des finances Amadou Mamadou mustafa Ba mi faatu actuellement état bi tëye corps bi war ko saytu parce que jàpp nañ ni nekkul dee boo xam ni dafa naturel nga naka nga gisee coow mi ah, donc day kumba nga permettre ma marsawu waa Sénégal marsawu tamit njabootam gi yëpp ndax Moustapha Ba nekk kon doomu Sénégal bu am xam-xam liggéeyal réew mi si fulla ak fayda te jii Sénégal ñàkk nañ doom yu bari xam-xam ñàkk nañ doom joo xamante ne ni lépp li ko waroon nag Sénégal def na ko ba mu ba mu mat sëkk maintenant nag fan yii yëpp ñu ngi dégg si euh, weer gu nekk ñu si wax yeneen mbir waaye li ëpp solo mooy nañ ko ñaanal suñu borom yërëm ko ci xaaral ko àjjana mais li nga xamante ni ñu ngi koy dégg ñi ko war a leeral lu leer soxna Kumba voilà ñu ngi lay remercier Makairé Kairé ci tontu bi nga xam ne tontu nga ko suñuy laaj. maa lay remercier bu baax soxna Kumba Moreau. Mhm. may fàttali na euh, Makairé Kairé yow yaay président au mouvement ensemble pour le développement de Rufisque jërëjëf. jërëjëf soxna Kumba.